mbokki asalaamaaleykum euh, benn waxtu jot na ñi ngi rafet lu seen ànd ak télévision Futur Média li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci nag pënd ba wëreegul ci yorin ndox mi fii ci Sénégal ginnaaw rek bi autorité de régulation des marchés publics daal di rek sàkku ci kër jëwlin ji dénk wàllu ndox mi ñu xoolaat kon dogal bi nga xamante ne jëloon nañ ko ngir rek jël lépp daal di koy jébal beneen kër gu naan Suez ci loxol SDE loolu nag kon taxale kon mbir yi di tàggatémbe fii ak ñoom ñuy càmbar nu mel ñoom waa ARMP ci indi Alassane Ba fële nag ca Faou nekk ca département bu Bounkiling région bu Sédhiou foofu lu toll ci fanweer ak ñetti dëkk ñoo fa nekk daal ñàkk lu bëri itam monte day boo xoolee la fa yeewoo ci doomu aadama seenam lim ëpp na euh, ak juróom-ñaar ci ay junni doomu aadama ñoom nag liñ bëgg rek mooy ñu tabaxal leen ay yoon yoo xamante daa ñu mën a dem ak dikk su ko defee lépp loo xamante ni meññeef la ci diwaan ba ñu mën ko yóbbu ci biir yooyu mi ndax jàpp na ni seen marché boobu di marché bu luuma mooy marché bi gën a rëy ca diwaan ba daañu ci ñëwaat euh, moom mooy ca Kaffrine moom la sonal tout tànk yam mooy loof ndax rek xiif goo xamante ni daal jàpp na gone téeméer boo jël fukk yaak benn ñi ngi tawat lu ni mel ba tax na kon euh, kër gën jëwriñ jën dénk wàllu wér-gu-yaram daal di tàggat lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay bàjjanu gox ngi rek ñu xeex xiif bi nga xamante ni kon moom mooy sonal tout tànk foofa ca diwaanu Kaffrine tàggat yaram laata loolu ca bitim réew moom la sonal nit ñi rek moom mooy la nga xamante ni kon moom moo xew ca Éthiopie lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan ci roppalaan bi nga xamante ni kon moom moo daanu di Ethiopian Airlines ba tax na kon tiis ak naqar daal moom moo topp rek njabootuñu lorle ba tax na kon kilifa yi daal di ne bisab tey bi moom bisab dëj lay doon ca Algérie it ndem sax seen président di Bouteflika ñibbisi na wante ba léegi daal askan wa ña ngay sàkku ci moom mu a amal juróomeelu Sénégal mi waajal match ba nga xamante ni kon moom la war a jonkonte ak Madagascar ci stade Lat Dior bu Thiès ba xam ne kon waa Thiès ñoom ñi ngi waajal bu baax boobee jongante jàpp ni sàgg la seen dëkk te daañu def seen kéemtulaay kattan daal ba bu dee foofu la ñu amalee jongante bi ñu daal di teeru ñaari équipe yi teeru bu rafet su ngeen la mbokk ñu yaatal xibaar yi dal leen jàmm mbokk yi ci xibaaru euh, digg bëccëg gi ñu dem fële nga xamante ni moom mooy kon ca faw nekk ca département bu Bounkiling foofu nag askan wi leen di sàkku rek mooy ñu defal leen ay jumtukaay yoo xamante ni daal dana tax rek diwaan ba génn ci làqu ga nga xamante ni moom la làqu rawatina wàllu yoon ndax jàpp na ne marché luuma ba fa nekk daal la fay jóge ci meññeefu bari na te bëgg nañ di koy tasaale ci biir réew mi Bakary Konte xaali jàmme fawn lépp fa manqué 33 villages yi nekk fii ci commune bi ñoom am nañ ay jafe-jafe yi tar pour rejoindre Touba Mouride nekk luuma bu gën a mag fii ci région bi. ci biir région de Sédhiou yàlla def na ne man maa si gën a am marché bu rëy boo xam ne ni mooy luuma te luuma bi problème yoon mu ngi euh, am naa ko fi lool pour ñu mën a génn sax ñëw si tali bi am naa problème boobu. nañu gën a jàppale si PUDC 3 bo xam ne def na ko lancement Bignona bëgg naa carré carrément nañu jàppale suñu biir commune de Faoun ñu mun a am si piste yooyu. am ndox lu jafe la fii ci commune bi si wàllu ndox si biir 33 villages yi 10 villages lañ si am am na 23 villages yoo xam na ni tey guddi bu guddi la ñuy roose la ñuy rootee. c'est que soo teelul a dem guddi rek doo mun a am ndox danga nga ne teen yëpp dafa ŋàcc bugg naa tamit si PUDC bi nañu jàppale tey ñu am ñaari forage bu ñetti forage yoo xam ne si biir 23 villages yi ñu génne tey tey si coono boobu 17000 habitants yi nekk fii ci gox bi benn poste santé moo fi nekk ba pare amuñu ambulance si wàllu santé presque suma commune dem na bu ay 17000 habitants si 17000 habitants boobu benn post santé laa am cent ambulance tey saret jigéen buy matu si saret lañ koy teg. population yi di ne dañu bëgg tamit courant. ci village la nekk amuñu courant amuñu dara mbuusu ndox galas bu ñu ko bëgg a jënd 400 lañ ko jëndee wala 600. weeru koor bu jot a 500 la ñu galas. parce que ku war a def am dépasse nga dem war a def dépasse 2000 nga dem yëkkati benn téeméer ba dem jëndee ju naan sa njaboot sa dépasse am na fu manqué. 17000 habitants yi nekk fii ci Fawoun ñoom nag ñi ngi ñaan président Macky Sall mu jàppale seen commune pour ñu génn ci jafe-jafe yi ñi nekk. ñu dem ca commune bu Diama ma nga nekk nag kon ca région bu Saint-Louis foofa nag kiit askan wa daal lan bëgg rek mooy wàllu suuf moom ñu gën koo xool su ko defee ñu ca war jot jot ca bu ko defee it mbay ma mën a mucc yipp éclairage public di leeraay ba it ci wàllu courant bëgg nañ ay saafara am ci jafe-jafe it ci mbay ma ak càmm ga ñoom daal joxe nañ bépp boo xamante ni ab jafe-jafe la jébal ko maire ba maire ba na dina ci indi saafara mi ngi tudd Mbodel Sow ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck xam nga ni ñun su ne jafe mën nañ wax ne mën ñu ko wax ndax ñu mu bare ndax ñun dafa am ay mbokk yu bari ay samakat lañu dañu am ay amu te pour bu amee benn dëkku mais bu mel ne seen bu indee benn saddu rek dafay doy dëkk bi yëpp mais bu amee ay amoo bu nekk du bugg am mbiram wala dafay sore saddu bi bon ñun suñu problème tey mooy ndox ak courant ak yoon ndox courant yoon ak sàmm bi ñu wutal jur gi lu mu lekk bi dootul dox di lu mu lekk mu rees ko non ñun suuf am nañu ko. te ñun koy jox suñu jigéen ñu ngi koy jox suñu ndaw ñu ngi koy jox ñëpp léegi li ma bëgg a waxoon ni man ba ma ñëwee ci maire dama ne gannaaw dëkk bu ngeen ñëw fexe leen ba dëkk bi jël gannaaw dëkk ba maa ngi wax maire yaa ngi waa dëkk yaa ngi taxaw ku nekk gannaaw dëkkam moo ko moomal boppam même bu ko moomul moomal nañu ko ko. ba nañu suñu problème tey mooy xale am fu ñu liggéey mais bu ndaw yi amoon financement seen suuf bi ñu leen may du am benn partenaire ñu nekk seen entrepreneur bopp. jël seen rakk jël seen yaay jël seen càmmiñ ñu nekk ci liggéey bi duñu lap ci gaal yi duñu daanu ci avion yi day nekk fii biir Sénégal liggéeyal Sénégal. li bokkoon ci li gën a ci boppu xibaar yi mu yore ndox mi fii ci Sénégal xam ngeen ni kër jël ñu din ko dénk dañoo amoon yéen rek jox ko beneen kër bu naan Suez ci loxol SDE loolu nag ARMP di autorité de régulation des marchés publics dakkal na lépp sàkku rek ci kër jëwlin jooju sax lépp loo xamante ni wàllu évaluation la ci wàllu koppar ñu xoolaat ko ñuy fàttali ni nag wàllu ndox mi ginnaaw bi contrat d'affermage bi jeexee ci diggante état bu Sénégal ak SDE am na ñetti société yoo xamante ni yëpp 2 bokk ci Suez ak Veolia ñoo ko doon xëccoo ñu ànd ci ak ba ci fàttali. coow li di woy ci lu jëm ci wàllum joxe euh, séddaleem ndox mi fii ci senegal ginnaaw dogal bi nga xamante ni ñi di waa ARMP jël nañ ko mu mel ni kon. ministère mi yor wàllum ndox mi ginnaaw tànn nañu entreprise française boobu di Suez ngir mu yor ndox mi euh, ci nëgandiku nag war ko exploité séddale ko war a delluwaat gannaaw nag ginnaaw dogal googu war ci tënku itam fexe nag boo xoolaat lii nga xamante ni moom la ARMP wax moo di saytuwaat lu jëm ci wàllum koppar gi ñu proposé lépp nag boo xoolee mi ngi tàmbali ginnaaw bi ñu nangoo ci SDE lu jëm ci wàllum ndox mi ñoom ñooñu société boobu sax ñu ngi fi depuis ñaar fukki fan ak ñett ci atum 1996 ci la ñu tàmbali yor ndox mi ah, fii ci Sénégal lu ëpp kon ñaar fukki at ak ñaar ci lu jëm ci wàllum exploité ak séddale ndox mi ñu yor ko wante itam boo xoolee ci appel d'offre international bi ñu def ñoom ñoo gën a tuutile ci lu ñu proposé ci wàllum koppar ci jaay ko ci mètre cube ndax boo xoolee 277 francs CFA képp la joxe ci appel d'offre boobu sax nga xam ne daanaka ci ñaari pàcc lañ ko xaaj ginnaaw ab jongante bu njëkk te ñett entreprise yooyu sax mu di SDE Suez ak Veolia ñu tànn leen ci société en question boobu di SDE boo xoolee ñoom dañu jàpp ni li ni mel ab scandale la moo di nangu ji ñu nangu ci ñoom séddaleeb ndox mi te ñoom ñi sax ñu gën a tuutile ci lu jëm ci wàllum koppar ci li ñu proposé ba tax na ñu duggaloon ab recours contentieux euh, fële ci ARMP gannaaw loolu dafa fekk ne itam seen recours gracieux bi ñu duggaloon ñoom ak Veolia fële ci commission de règlement des marché bu ministère mi yor wàllum ndox mi dañ ko dàq Veolia moomu sax nga xam ne moo ëpp ci li mu proposé ci lu jëm ci wàllum koppar toll na ci 366 francs CFA le mètre cube moom la ñu fas yéene woon jaay bu fekkente ni joxoon nañ leen lii di marché bi. siège nag ci boppam moom nga xam ni moom la ministère mi yor wàllum ndox mi joxoon nëgëndiku marché boobu nag lu toll ci 298 francs CFA la proposé woon naka noonu kon mun a amaat espoir bu yees ginnaaw dogal ARMP boobu Mansour Faye ak ay service am war a tënku ci dogal ARMP boobu saytuwaat lu jëm ci wàllum koppar googu jërëjëf Alsaan mbir ya daañu ko topp fa mën a ñu daal leen koy jébbal yéen askan wi dem fële nga xamante ni kon moom mooy ca Kaffrine foofa nag tu tànk yi la sonal mooy lot lool li ko waral mooy xiif xiif googu nag tubaab naan ko malnutrition aiguë moom moo tax rek district ba di kër wér-gu-yaram nga nga xamante ni moom moo fa nekk daal di tàggat lu toll ci juróom ñaar fukk ak ñaar ci ay bàjjenu gox su ko defee rek ñu mën a xeex xiif nga xamante ni kon moom moo yoot ba sonal yenn ci ndaw yi ndax téeméer boo jël fukk yaak benn lu ni mel moo leen dal ñu déglu ci rek soxna si nga xamante ne kon moom lañ dénk district sanitaire bu Kaffrine moom mooy docteur Ndeye Mbacké Kane ci micro suñu correspondant ca Kaolack di euh, Ibrahima Diamé ak Khali Diamé. Euh, la malnutrition de manière globale constitue toujours un problème de santé publique euh, parce que les, les prévalents restent toujours élevés. Si on prend le, district de Kaffrine en euh, le taux de malnutrition aiguë sévère tournait aux alentours de et la malnutrition aiguë globale aux, alentours de 11,2%. Pour dire que juste c'est quelque chose euh, qui est là et que je pense que cette formation va nous permettre davantage de sensibiliser les mères sur euh, les bonnes pratiques alimentaires et les bonnes pratiques en termes d'hygiène, mais aussi capacité 92 Badianogor pour mieux ñu déglu kon ci kàllaamay nasaraan la docteur bi doon wax ngeen déglu ko noonu kon malnutrition aiguë boobu dee xiif bi sonal ndaw ñi moom jàpp na ni rek daañu ci indi saafara ba tax na kon bàjjenu gox yooyu ñu daal di leen di tàggat ñu mën a xeex lu ni mel daañu ci dellusiwaat su sunu xibaaru ngoon yi fële nga xamante ne moom mooy ca Ziguinchor foofa nag ñi nga xamante ñooy kilifa yi dénk wàllu njàng meeg njàngale may ña ngay def seen kéemtulaay kattan ba tàggat jànq ji su ko defee lépp loo xamante ni wàllu science la di xarale ñu gën cee mën a xarañ loolu nag liñ ci bëgg mooy am ci résultats yoo xamante ni baax na ba tax na daal concours bi dañ koo jagleel rek ndaw yooyu ñu tuddee ko kon euh, mi séance ak mbir mathématique su ko defee kon yooyee ndaw euh, gën cee mën a ràññeeku ñu déglu ci kon ki nga xamante ni moom lañ toftal ci IA bu Ziguinchor ci micro Ousseynou suñu correspondant yi nekk foofa di Babacar Diassi ak euh, Lamine Mandia. population féminine moo ëpp ci Sénégal mais aussi boo demee ci école yi jigéen ñi moyen bi moom bare nañu surtout ci ci classe scientifique bi yenn saa seconde sax dinañu bëri waaye booy dem première terminale day gën a wàññeeku te dañu bëgg lool moo tax ñu di leen di tàggat pour ñu gën a am doomi jigéen aussi parce que Sénégal bu naree développé doomi jigéenam doomi ay doomam yi jigéen ak doomam yu góor ñoo koy développé looloo tax ñu tàggat leen ñu gën a xarañ ci mbiru science dañu di organiser concours bu nga xam ne xale yu nga xam ne dañu xarañ ci mathématique ak euh, science physique ak euh, science et vie de la terre. ñu jëmee ci école privée comme publique ñu nga xam ne xale yi am nañ profil bi bu ñu defee concours bi moom moromam yi léegi xale yi nga xam ne ñoo ci génn ñooñu la ñu primé tey ñooñu la ñu récompensé ku ci gën ku ci gën a xarañ kooku mooy dem Dakar pour concours bi kooku la ñu ne Miss mathématique bu dee quatrième la bu dee seconde ñu ne Miss science. ñu dem fa fële ca Rufisque foofa nag styliste bi di Juma Jëng Jaxate fekk baax ca diwaan ba moom moo fu bi benn centre de formation su ko defee nee na lay la mooy ñu tàggat soxna yi su ko defee ci wàllu autonomisation moom seen bopp ci lépp daal ñu mën ko fa jëlee looloo tax rek mu daal di fay samp kon googee kuréel démb nag la doon amal ubbite ga foofu nga xamante ni kon moom mooy ca tënge ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam ak Bamba Samb douze millions yéen a gën a xam ne tabaxul centre de formation waxatuma laan di ko équipe en plus mais ñu ngi ñaan le chef de l'État gardien de la constitution ak nu mu faydaalee jigéen ak nu mu bëggee jigéen démb rek au président lu mu wax nee na électorat bi c'est un électorat féminin sans les femmes score bi mu am du ko am donc nous comptons encore sur lui que ñu concrétiser centre de formation bi du ñu bëgg président Macky Sall nu mu koy defalee jigéen ñi te yàgg ko defal jigéen ñi ñu concrétiser suñu centre de formation bi nga xam ne lu ñu bëgg mu nekk benn rek nag ci Sénégal ñu wax ci wàllu politique euh, parti bi di LDR yeesal te Modou Diagne Fada jiite ko démb nag ñoom ñi ngi doon rek jàkkaarloog taskot xabaar yi bi ñu amalee seen comité directeur li ñu bëgg rek mooy démocratie ñu gën koo mën a suuxat fii ci Sénégal sàkku na it ci président Macky Sall mi nga xamante ni moom la doon jàppale ci présidentiel li mu wéyal waxtaan wi nga xamante ni bëgg na koo def fii ci Sénégal ñu koy wax dialogue national Pape Fara ñi nga ak Jaafara Ba commité directeur bu LDR yeesal rafetlu bu baax a baax élection bi ni mu demee fii ci réew mi parti bu Modou Diagne Fada di ñaax njiitu réew mi mu gën a dëgëral démocratie naka noonu mu tàmbali ay waxtaan ñëpp ñi nga xam ne ñoo séq langue politique bi. léegi nag li ñu jëm mooy euh, suuxat bu baax démocratie bi nga xam ni peuple sénégalais am na ko ñu gën ko suuxat. te loolu nag buñ koy def dañuy woo ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ak nekk bitim réew te jokk ci Sénégal yore fi ay baat yore fi ay ndomba tànk ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp à ce que ñu wuyu woo bi nga xam ni président Macky Sall woo na ko dialogue bi nga xam ne woote na ko ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw wuy si ko pour que sunu euh, Sénégal mënu a wuyoo euh, ñor gi xam ne ñor na ko ci élection yi nga xam ne génn nañ ci. ñi di réformateur yi jàpp ne fal gi ñu falaat Macky Sall amul benn jeexi jaaxa sénégalais yi sax doon koo gën a gëddal ndax bilan bi nga xam ne def na ko. bilan bi nga xam ne président Macky Sall aussi aussi liggéey na ko ci réew mi maanaam li mu liggéey ci réew mi résultat ya tax na ba président Macky Sall gagné bilan boobu nag mun nañ ci ràññee lu toll lu mel ni Promoville ràññee ci lu mel ni Seymi ràññee ci lu mel ni Puma. ràññee ci lu mel ni PUDC ak yeneen yoo xam ni mun nañ ko ci mun nañ ko ci yokk loolu nag euh, day wane ni sénégalais yëpp ñoo ne Macky Sall président Macky Sall yore waat réew mi ndax itam ni nga ko yore doy dañu LDR yeesal di woo njiitu réew mi nag mu daal di wéy ci li nga xam ne moom la nekkoon tabax réew mi ba ñu am Sénégal émergent ba bu ko defee sénégalais bi fu mu mun a nekk daal ci yëg boppam fële ca Louga it ki nga xamante ni moom moo jiite mouvement bi di valeur jiite kër gi naan rek petit train de banlieue di magistrat bi di Omar Boun si la moom it jàkkaarloo na taskatu xabaar yi ginnaaw bi président de la république ñu falee ko ci bopp réew mi moom nekk nee na Louga gëm dëkk moom am na loo xamante ni kon ñu ngi koy xaar ci Macky Sall bokk na ci xëyum ndaw ñu wante it jigéen ñi ñu gën leen a dooleel su ko defee wàllu koom ak gi nga xamante ni moo leen di soral yenn saa yi ñu indi ci saafara ñu déglu ko moom ci micro Thierno Fall ba tax na nag comme li ñu bëggoon yàlla defal nañu ko ba président am un deuxième mandat dañuy ñaan état du Sénégal ci lañ bokk dañoo bëgg jeunes yi ñu gillee na taxawu ci wàllu liggéey ndax may nit ki jën jàngal ko ni ñuy nappee moo ko gën. donc président gis nañu réalisation yu am solo yi nga xam ne def na ko ci wàllu formation professionnelle ñu ngi koy ñaan mu gën cee bàyyi xel Louga ak financement famille yàlla xam na ne jigéen ñi am nañ jog jigéen ñu ku leen jàppale ñu dem président gis nañ tali yi président gis nañ lamp yi gis nañ assainissement yi gis nañ Promoville gis nañ Puma gis nañ leneen ñi ngi lay ñaan nga gën a bàyyi xel waa Louga ci wàllu infrastructure ñu ngi dem ci élection locale dañoo bëgg waa nga def benn say dëkk bi ñu jox ñu am xam-xam ñu agir activer levier internationaux yi la coopération internationale defar sunu dëkk bi ci domaine yëpp tële tële beeg làmbatu bi ñu bëgg mu dara ñii tële te mënuñu nañ dem toog bàyyi ñi mën bu nu ko deful bu nu ko deful dañ leen puus teg fi ñu mën. waaw Medina Yoro Fula ca région bu Kolda moom li ni xaar ci président Macky Sall ginnaaw bi ñu ko falaatee mooy àll bi nga xamante ni am na ñoo xamante daal dañoo jóg rek ngir yàq ko di gor bant yi loolu nag lañ bëgg ay saafara ñoom bi ñu doon def rek évaluation jëm ci élection présidentielle yooyu jàpp na ni daal boobee diwaan ndànk-ndànk mu ngay génn ca làqu gam làqu ndax rek ay infrastructure yoo xamante ni kon gornement bi def na ko ca ñu ànd ceeg Ablaye Diallo. département Médina Yoro Foulah mu ngi génn ndànk-ndànk ci enclavement bi mu nekk te ñàkkum ay yoon yu baax waraloon ko mu doon ay réalisation yi leen Macky Sall defal. ci désenclavement diggante Pata Kolda defar nañ ko di fare Carrefour Ndorna ak euh, kii nu mu tuddati euh, ko liggéey nañ ko diggante Médina Yoro Foulah Kolda liggéey nañ ko Badion Fafakuru Kanja liggéey na ko Badion. Mampating liggéey na ko. Bignarabé Taliel liggéey na ko. la ville de Médina Yoro Foulah est en chantier d'ici les routes euh, euh, les les gradeurs sont en train de travailler entre Pata Médina Yoro mu waral ñu daal di ko votel bu baax a baax ci élection présidentielle bi weesu. résultat bu ñu am ñun rek ñoo ko am ci biir région de ci wàllu taux am nañu 65 pour cent bu ñu amee 70 pour cent euh, de taux de participation ñu am 65 pour cent ñoo xam ne ñoom ñoo réélire président Macky au premier tour loolu jar na woote ndaje bu mel ni pour gërëm président de la république gërëm population bi aussi. ci mandat bi ñu ngi yaakaar ci président Macky Sall bu baax a baax. ñu laaj département bi am nomination comme que ñun amuñu DG amuñu PCA amuñu même chargé de mission euh, am na yoon bu nekk ci frontière bi puisque bu nawet jotee euh, boo jëlee boo demee Buruko il faut nga ñëw Kolda doog a dem Vélingara wala doog a dem Carrefour pour nga dem ci comment dirais-je Dakar kon loolu yaakaar naa yooyu yëpp bu PUDC ñëwee ak Puma mun nañu régler loolu donc loolu doléance yi. xam ngeen euh, département bi de l'est à de dafa frontière ak Gambie donc loolu danañ taxaw pour ñu euh, régler loolu. njiitu réew mi ñu ngi koy xaar tamit ci xeex bi ñu sumb jëmale ko ci yàqkat àll ba ca département bu medina Yoro Foulah xibaar yi bitim réew la ca gën a fës nag mooy tiis wi nga xamante ni kon dal na ci Afrique ndax rek roppalaan bi nga xamante ni Ethiopian Airlines ñoom ñoo ko moomoon démb nag mu jóge woon kon fële nga xamante ni moom mooy ca Addis Abeba jëm ci Nairobi ca Kenya daal di daanu lu toll ci téeméer ak juróom fukk juróom ñaar yi nit ñàkk ci seen bakkan ba tax na tey ji daal kilifa yi jël dogal rek ne altine tey ji daal deuil national maanaam dëj boo xamante ni daal dañuy delloo ndukkal ña ca ñàkk seen bakkan am na ay dogal yoo xamante ni waa compagnie bi jël nañ ko feek ñuy xam xam rek lan moo dogal boobee jëye fële ci Algérie te manifestation yaa ngay wéy ndax président ba di Abdou Aziz Bouteflika feebar lool bay dem ci siège sax mu daal ne du fi def juróomeelu mandat bi ñu ànd ceeg Modou Fall. xibaar yi biti réew yi doore kook euh, altine gi nga xam te ni ci Éthiopie dañ ko jàppee bi euh, bisub yi national euh, parlement bi def lu ni mel gannaaw nag crash bi ñu nemmeeku dibéer gi di ab avion roppalaan bu compagnie Ethiopian Airlines bi daanu information yi njëkk yi jot a moo di fanweer ak juróom nationalité ñoom la ñu jàpp ni ñoo yëgoon ci avion bi bokk ceek ñi nga xam te ñoo di personnel de bord bi kenn nag mujj cee mucc ñoom ñëpp faatu Boeing 737 euh, bu Ethiopian Airlines a ngi yaboon lu tollook téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari doomu aadama moom avion boobee di roppalaan gi euh, moo doon naaw ci diggante kon Addis Abeba ak euh, Nairobi nekk fële ca Kenya ca Algérie ñu jëm foofe nag euh, ñaxtu yaa ngay wéy euh, gannaaw gi nga xam ni président Abdelaziz Bouteflika toog na ñaari ay bés yam fa newul moom wàññiwul dara lii di ñaxtu wi ni ñaa ngay wéy nag di wàcc ca mbedd ma askan wi ñoom la ñu waay sàkku moo di kon kii di seen président boobu lay bu mu sàkku lii di juróomeelu mandat ajuma ju ne nag ñu daje ajuma ji nag daje gi sax am na solo lool ah, ba ñu mujj dëkkmal grève générale bu paralysé mbooleem dëkk bi askan wi la ñuy sàkk mooy Bouteflika moomee abale mook régime am armée bi nag jàppale na askan wi ci seen manifestation yooyee ndaxte xam na ni moom ak peuple bi ñoo bokk gis-gis. jërëjëf Modou Fall xibaaru tàggat yaram bi nag xam ngeen ni Sénégal mi ngi waajal matcham bu mujj jëm ci éliminatoire coupe d'Afrique yi loolu nag ñu ngi ko nar a jàmmarloog euh, waa euh, Madagascar ba tax na kon match bi ñu jàpp ni daal ca stade Lat bu cees lay amee looloo tax nag ndaw ña daal di takku ñu nekk fa fële nga xamante ni kon mooy ca benn dëkk ñaari gaar ngir waajal boobee jongante ànd ceek seen i kilifa ndax jàpp nañu daal li sag la ca cees te bëgg na ni te mbir mi daal Sénégal jëm ca ndam wante it Thiès daal da cay am ndam ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak say Thiès mi ngi waajal bu baax dalal équipe nationale bu Sénégal bi fas yéene daje ak Madagascar ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru mars bii di ñëw ñu jëm ci wàllu éliminatoire Coupe d'Afrique de Nations 2019 lépp yemb na ba tax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Thiès te ay sportif di wax ne Thiès waa yépp nañu génn jàppale équipe nationale bu Sénégal. bu demee ba euh, Tipo Thiès. pour ndaje boobule dama yaag te fekkoon ne tam que fii terrain ki stade bi dañ ko doon defaraat tout ça la yaakaar naa ne xanaa de dafa fekk nekk que lépp a ngi fa loo xam ne dinañu permettre ñu euh, recevoir en tout cas match bi fii. Sénégal yëpp ñëpp ñëw fekk si euh, fekk si Thiès fekkee mat match boobule di fàttaliku démb. invité Sénégal yëpp ñu jël yoon woo yoonu ngor yoonu jëf yoonu wareef yoonu góor góor André Cissé mi nga xamante ne délégué médical. Sall di yëngu bu baax lu jëm ci wàllu tàggat yaram ne nag ñu indi match bi fii ci diwaanu Thiès dina baax lool ci ndaw ñi. que match Sénégal Madagascar ñu koy joué Lat Dior ñun Thiès waa yëpp du ñu kontaan parce que on s'est dit pour la première fois xale Thiès yi dinañu mën a gis joueurs yu mag yoo xam ne dimension mondiale la tel que Sadio Mané Kalidou Koulibaly Mbaye Niang Diao Baldé Keita et que ku ne Thiès xam ne dëkk boo xam ne bu yëngu la. donc xale yi je pense dinañu mobiliser wu pour dem stade supporter gaynde yi man maa ngi di fas yéene naa dem ak sama doom parce que loo ko wax mu ne Sadio Mané Sadio su jooyee sax ma ne ko di xoolal télé Sadio Mané mi ngi fubal bu noppi. daanaka liggéey yi yemb na techniciens yu bëri nag ñu ngi ci stade bi di nemmeeku di jooyantiwaat ngir waajal match Sénégal Madagascar bi ñu fas yéene amal fii ci diwaanu Thiès. ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fas ci yenn kaay la ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf couple mu di boole woo wootey local yeeg législatif yi xalaat boobee fi ay Tall Sall yëkkati woon journal yu bari xëy nañu ko tëral ci seen xët njëkk bokk na ci Sud Quotidien bil yéenekaay bi li muy jàngat mooy wootey député yi mu di législatif yi bu ñu ko boole woon tey ji ak yu gox yee goxaat yi di wootey local yi ana bu boobaa lu cay doon njariñ lu cay doon gaañ Ababacar Fall di expert électoral gis ne couplé élection yi du farata te bu ñu ko defee dafay gën a mitt ci système électoral bu Sénégal professeur Moussa Diaw nekk ci université Gaston Berger bu gis ne loolee lu xel mën a nangu la journal bii di sud ne ñu ak lu waxtaane coow loolee waaye gile yoon bi ci meneen mbir lay waxtaane mu di mbir yi tas assemblée nationale gi ñu fi wax yéenekaay bi nañu loolee ñi fare ci nguur gi maanaam mouvance présidentielle bi bokkuñu ci xalaat sax xalaatub Abdoulaye Wilane bu parti socialiste ci xët mu njëkk Le Quotidien muy xam le xalaat bu ni mel jarut a jëmee kaw ndax c'est anti Benno Bokk Yaakaar c'est anti Macky la Sénégal nañu président Macky Sall mu di waxtaan ba léegi li ko waral moo di yi li ñuy ragal mooy président Macky Sall woote dialogue bi gaa ñi dem dëggal xalaatu boole wootey législatif yeeg yu local yi def ko muy benn ci weeru décembre Matar Ba ministre des sports nañu ci l'observateur waxi couplage élection yi teel na ne am pecc bu bëggee jiitu musique ba kay fecc du dégg daaj ba ba Matar ba tey ci waxtaan wu yaatu mu séq ak wàllu observateur yamul foofe ne dem na bay xam le ne xel mënuta nangu ab coalition kilifa ya ca nekk bëggee dëkkee fantasiro tibbantey tànk ak damantey xef weddi na li ñu koy waxal moom Matar Ba ne dafa pànk militant la bu teggi ndawal ministre des sports Matar Ba ne loolee dara amu ci ak la gëm ca bopp mairie bu Fatick li mu ci xalaat wax na ko ci l'observateur ci direct info waa kër Siré Dia yi ñoo fi xëy di aalo yëral yéenekaay bi li waa yi ca Thiès am ñu jóg bëgg koo jiñ Siré Dia loolee la gaa yi Siré Dia yi ne duñu ko nangu ñoo bañ bay xalangu ca naaj wa ne waxtu leeral bu jotee noppi amatu fa place moo waral ñu defu conférence de presse ngir wax dëgg ji yéenekaay bi dañu gaañ yi jàppal tànk Siré Dia nee nañu campagne de désinformation boobee du kenn ku dul ministre Augustin Tine député Abdou Mbow ak Demba Diouf directeur de cabinet ministre des forces armées ci élection législative yi weesu ba léegi amuñu jàmm ndax li si raja def ca Thiès mooy ferege ñeenti seen xol yi moo waral saa yu ñu xëyee nu ñu yàqeb deram rek la ñuy seet waaye lii si raja liggéey ci ndamal président Macky Sall ci wote président yi 2019 yi amul kenn ci ñoom ko ko ci def yéenekaay bi mel ni kuy dëggal wax ci ndax mi ngi ñuy xamal ne li Macky Sall daan am ci élection ca Thiès élection yi am na ko ba ëppal ñaar fukki junniy voix te loolee directeur général bu poste di si raja moo ko fa liggéey source a nañu aw ñoñom moom Pape Siraja dal nañu bu baax maax ci kaw ministre Augustin Tine ak vice président bu assemblée nationale di Abdou Mbow yàkk leen musiba ndax nee nañu dañoo xam xel ni Siré Dia moo leen man ca Thiès ñu bëgg koo fexeel ak di ko xeex Edouard Latouf bokk ci comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar ca kees nañu ci la Sénégal bu dee am na kirim bu Siré Dia def xëy na mooy li mu bëgg ab dëkkam mu di kees ga mu dëkk dëkkandoo Macky Sall ak waa AFP baadu dafay waaj a jeex la tribune ñu duma ne la déet ne benno gi ci biir Benno Bokk Yaakaar sax mooy bëgg a tas ndax waa AFP mu di waa kër Moustapha Niasse nee nañu présidentielle yu 2024 yi bu ñu ci yeggee daañu am candidat danañu samp seen mbëru bopp élection locale yi ñuy séntu ci weeru décembre it waxaguñu ci lu leer li leer nañ wér péng les éco nee nañu moo di diggante maître Madické Niang ak parti démocratique Sénégal diggante ba jeex na nday mbili ji di maître Madické Niang moo ko waxal boppam nee na waxi parti démocratique Sénégal moom pare na ci définitivement journal bi nañu waaye na ko leer nag bu bàyyee PDS dafay delloo ndombal tànk député la ko joxoon ca assemblée nationale bu boobaa li xew-xewu jamono la xëyee ak benn camion bu ñu jàpp ca Guinée Bissau camion baa nga yaboon lu toll ci 789 kilogramme cocaïne camion boobee defoon drogue bi plagu Sénégal moo ca nekk Thiès la ko immatriculé drogue bu bari boobee ñu fekk ci camion bi Mali la jëmoon am na ñeenti doomi aadama yu ñu ca teg loxo kenn ki Sénégal gi la dëkk ñaar ña réewum Nigeria kenn ka Guinée Conakry ki jiite woon yëf yi maanaam cerveau ba Vox Populi nee nañu dafa daw ci jamono ji ñu Vox Populi di waxee ne 789 kilogramme cocaïne réew mi quotidien moom nee nañu ëpp na ko camion boobee ñu jàpp ca Guinée Bissau mu yeboon dorog te ñu ne camion bi Sénégal la dëkk fekk nañu ca kilo kilogramme cocaïne jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñu am yéen kon ci xibaar yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média jox leen daje ngoon ak yeneen xibaar incha allah ñu yendu jàmm